ma ne ko loolu doy na sëkk nee na ba mu tëddee rek la sama dikk mu jaaratulaahi maam jaara nag dafa dafa sori ci xolub sëñ Tuubaa ndax amuñu lu ëpp fukki at soxna si dem àjjana damay gis jigéen bu liggéeyee ba sonn am ay doom doom ya tekki bu ñu amee xew bu ñu ko dee teral dañ ko naan njaag jógal njaag nangul njaag nangam njaag mooy soxna jaara moo liggéey liggéey bi moom lépp moom képp moom soxna jaaratulaahi te fekkewul dara ci teraangay borom Tuubaa ji ci zahir moo tax boo demee ci xas dëkk si yi sëñ Tuubaa di ko defal ni ko soxna si na sa xol sedd boo yegsee ci boo dee jàng si di ba yegsi ci war na ji nii wa jamihal muslimina ma an war na ji waalidati amina yàllaaw haa kabir joo ca gisati soxna jaaraa ko moom axfir lanaa wa lahaa wa sur maayibana wal tufnaa biha an fi lhawli yàllaaw ana tajawas wa iyarhaman na fa maa lahaa siwaaka wa antal barru yàlla fii barzaqin maha xabrin kun lahaa wasaran wa min kuróobi noo xofi naj yàllaahu laa tax dabir haa bi ma laysat bi xaadiratin wala tuxayib rajaha fii ka yàllaaw Sëriñ Tuubaa nee na bu yomal xiyaamee fa nga xamee ni fa la wane li nga am neexe ndax yàlla day teew yonent bi teew sallallahu alayhi wa sallam nit def genn kuréel buntu ñàkk jinne yi wër nit ñu juróom-ñaar fukki yoon buntu gën faa ñàkk malayka yi góor leen nee na bu yomal xiyaamee dañuy xëcc jant bi ba mu tim bopp bu ne kem sebre kem lu tol nii kenn ku nekk danga nga ñàkk kem sa bakkaar sëñ tubaa nee bu keroogee ku la ëpp bakkaar moo la ëpp ñàkk nee bu keroogee ñëpp teew yonent yi al anbiyaau kullun muslima musliman an taalamu minhu adabul ibadati nee na bu keroogee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ma ni caq ci sama mbëggum di joor man Ahmadou Bamba dana ma yëkkati ba ñëpp séen ma dana ma wërale mbooloo mépp ba ñëpp gis ma mu sëpp ma ci digg géew ci digg ba leen yéen yonent yi ku jàpp ni sa morom laa seetal ba saw xeet ku mel ni Ahmadul Xadim mii nee na bu keroogee kenn du ko gis nee na bu keroogee sama saaba yi teew sama murid saadix yi teew sama seex yi teew bu keroogee ku ma génne sama mbooloo kenn du génne ku na bu ko rogee bu ma génnee sama yaay ne man sama yaay ngi kenn du génne ku mel ni maam jaara jigéen ju am fanweeri ak nget am dëkku boppam am jumaay boppam am marché boppam am màggalu boppam nga xam ne jusqu'à présent jusqu'à sama tey ba mu sub tey bii moo battre record moom soxna jaara ci liñ ko tudde ci ay doom ba na gën sii bis bu yàlla sàkk li ñuy tudd ci ay doom yu góor rasul laay ci ëpp turandoo ak rasul sëñ Tuubaa li ñu tudd ci ay doom yu jigéen sax na jaaraa ci battre record ba bisub tey bii nee na bu keroogee bu ma wanee sama nday sama nday ku amoon sa nday da nga ko denc bu keroogee su ma wanee sama baay kenn du wane baayam bu keroogee su ma wanee sama doom kenn du wane say doom bu keroogee bu ñu dee wane doomam yi ba génne Seex Mustafaa wane ko mu dund juróom fukki juróom-ñaar képp sëñ Tuubaa ko Mustafaa doy nga ma ni ni Rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam doy loo woon Seydina Omar sama ginnaaw bu xat damm bu dara yàqu say raka goog na jumaa ji taxaw na bi yegg Tuubaa yaral ñëpp na nga ma yóbbu mu te bu xat damante boo yaafasee du am bu keroogee bu Seex Mustafaa génnee kenn du wane sab taaw waaye bu keroogee bu Seex Mahamadul Faadal génnee man bachar salafa sumal xalafa borom ma ñetti fopp maa ko def maa mag fopp maa raw fopp maa gën a jege sëñ Tuubaa fopp bu keroogee bu sëñ Fallu génnee kenn du taxaw den ak moom waaye bu keroogee bu Seex Abdul Ahad Bakke gay dégg njolloor génnee nga xam ne lépp lu yàlla waxoon ak te sëñ Tuubaa dafa wax ni min jay ilaa wam sa chin fii maa kuutiba lahu min ayati wa zikril hakim nee na diggante ama jay sa sin gii ma demee ci géej gi ak ama wam sa sin gii ma fekkee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu fi yàlla ma sa wax ak yonent bi ci kaw rek déy na koog man ci suuf lu fi yàlla ba sa wax ak man ci yonent bi ci kaw déy na koog man ci suuf boo tax Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké wax ni la force peut vaincre la vérité la vérité peut anéantir la force mais l'union de la force et de la vérité est invincible sëñ doole ju ànd dëgg la du manant doole ju l'union de la force et de la vérité c'est invincible mooy sëñ Tuubaa moo tax tubaab bi di on peut pas la mer avec ses bras sëñ Tuubaa kanam rek la jëm fustu wa ayaami ustarat umuusi wa qult fustu fa xamuus fil xamuus nee na sama lépp kanam la jëm ndax trinité dafa am ci yoon mu daf cee nekk aw yoon xam-xam da cey ne wërsëg ne ca baatin ne ca mooy cin yetti was moo taxaw moo moo moo teg liggéeyu sañ tubaab bi sëñ Touba nee na sama ndey ba ma fekkee ca kaso booba ana lu ma wax dana ko Ahmadou ndax xam nga ma ma ne ko jàkk di ko xam naa la yow yaay Mariama bintu Ahmadou Moussa ba yaay sama ndey mu ne ko ak saa Ahmadou ba nga ganee adduna maa doonoon sa seere fa nga feeñe fa nga waxoon sa borom ni ko di nga ko defal loo xam ne góor guy takk tubéy mosu koo def hmm. ni ko rek Ahmadou foo wéete fa la liggéeyal yàlla dàqe bul raw bul bul naa boo xam ne bii mooy fondation wutal ne bii ci teg sa liggéey atta ko lu la neex tegal ci sama liggéey ndekete liggéeyub ndey ni mel ci doom ni fondation mel ci tabax. mu ne ko wutal naa la fondement boo xam ne bii loo ci teg sa mag sa loo ci sa mag may sa doole ko sa jigéen may la ko tegal ci sama liggéey attan na ko. ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko laayu naaw lu fi ilaa bi kenn mu mënut a jëriñ te sonnoo sëñ Tuubaa teg ca wesaroo di maam jaara mat na ku kuré moo tax mu ni nabaxtukum maan ala kaddin badaa li qabla an uraadil mu abada sëñ Tuubaa nee na xëyuma xëy mel nii ma mel damaa sonn damaa kange damaa liggéey liggéey boo xam ne bii xidbatan mardiyatan maqbulatan saafiyatan liggéey bu yàgg liggéey bu métti liggéey bu wér boo xam ne bii ànd ak lekk ànd naan ànd gis doom ànd gis koo xam ànd ak dimbali sëñ Tuubaa nee na lu ma sonn sonn sonn lu ma wéet wéet lu ma xiif xiif lu àll bi lëndëm lëndëm nee na su ma nee Muhammad damay amaat beneen souffle damay amaat beneen énergie damay amaat beneen force damay amaat beneen élan nee na yoon ci yàlla Muhammad turam wi mooy chargé samay piil moo may revivier moo may dundalaat Muhammadun zikruhu unsi wa mafarxati wa nuuru xalbi wa ahdaa i wa raxaati nee nañ gaynde la am na melo yu ko gaynde nuru ndax rabi àlli yëpp gaynde ci ëpp am na juróom-ñeent fukki tur ci arab ak juróom-ñeent li mu asmaillahi al usna gaynde dong la ñuy tegge doomu aadama te bari tur day tegtalet ngënee li ka ñu tegg xam nga ni gaynde un lion ne se rem ne gaynde bu soxnaam dee faatoo sax. du du sëyaat. gaynde xam nga ni du dëpp. gaynde du geesu day dëpp day wëlbatiku sëñ Tuubaa daawul daawul daawul geesu day dëpp xam nga ni gaynde du tooñ même bu la fàddee rey la tooñu la gaynde du tooñ te gaynde moom dong la mën a tagg doomu aadama mu diw tagg ci moom weneen rab boo taggee doomu aadama rek da nga koo xas kenn mënut a jàkkaarloog nit ko yaa di séq wala yaa dim kooyi wala yaay yaa nag wala yaa dig lëg doomu aadama boo ko bëggee tagg rek mu yëg tagg wa rek yaay gaynde rek nga koy wax moo tax sëñ Tuubaa mooy gaynde nee na fa man takkun bi rasulillahi nusratuhu intal xuur ustu fi ajaamiha talini moo tax sëñ Tuubaa dafa bëgg ku koy wax baax baaxam yi ku koy ber ku koy wéetal ba ko dugal ci benn groupe sëñ tubaa dee na nazaani min al waral baaxil xadim allamahum bi adnadin abdul xadim mulku la si baqaauhu laa yantahi yaqudu li fi abadin ma ashtahi moo tax saa yoo ko beree rek saa yoo ko beree rek am ngërëmam nanguwul ku ko tollantee kenn nanguwul ko dugal ci benn groupe moom xaadimu rasul mësu koo mayee maam Cheikh Rafal mësu koo nangu mës sa nangu ku tudd sëñ tubaa tudd keneen ndax xam na ni nag fa mu nekk kenn newu fa mm. bi mu dikkee fii ndar fanaan fa guddi googu nee na guddi la goo xam ne gi yéex naa koo fàtte waxtu wu ne su sama xel demee rek damay bëgg a jël ay gànnaay isa zakatu zalika al mabita wa zalika al amiro subatu taarat a jihaadi bi arna yi nafsi walakin saba adin maahi waaye nee na dem naa ba fàtte ko nee na daamidaadi xadaa xaaji li xidbati man tabshiruhu daral ahda ansaana nee na sama guddi ndakaaru yaag sama guddi kab la presse sama guddi libri yi yaag lépp laa fàtte ba ma yàlla fayee yonent bi fay ma ñu neexal ma te sun borom saa yu fayee lahul usna wa ziyaadatan saa yu fayee rek neexal nee na yàlla fay na ma ba fàtte naa lépp la lépp fàtte naa ko loolu moo tax ndakaaru gii gisaguñu payug sëñ Touba ndax yàlla démb ak tey ak ëllëg ñooy am ci moom ba mu fanaanee ci kasoom bu xat bii mm. te dara yóbbewu ko ko lu bëgg yàlla ak nar dimbali xeetu yonent yàlla Muhammad la ko fi yàlla fayee sooro rab yu kawe yii ak péncam yii ak jumaam yu kawe ji nga xam ni boo waroon soowu jant gépp doo ci teg sa bët ku wéet dem fa ku xiif dem fa ku mar dem fa ku bëgg a jaamu yàlla ne fa te mu nekk ci quartier latin Ndakaaru nga xam ni kenn xamul fu ko yàlla dencoon bàkk bii nga xam ni mooy masaalikul jinaan nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba rek la ko fa yàlla neexale mu di liggéeyam ci guddeem gu tiis googu ci Ndakaaru mm-hmm. le 21 septembre di gaawu sëñ tubaa gaawu bis bu ko jig la moo tax nañ koy bakk ci gaawu yi di ko kañ ci gaawu yi ndax gaawu rek lay génn këram gaaw rek la déggoon duggoon ci gaal nee ci biir bato bi ñu ma embarqué ci laa xamee ni man gabog laa jëm allama nii rahmaanu fi safina bi anna nii xaddimu silmatina nee na ci biir bato bi ci laa takke nag xàppu xaadibu rasulullahi le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam te le 21 septembre boobu itam ci la julli ci géej gii ci océan bi nga xamante ne bii dugg na ci biir gaal gi ñu aménager ko benn cellule mu toog ci bagaasam bi nga xamante tisbaar jot na muy waaj ba bëgg a julli tubaab bi di kii ko sunu gaal gii nag moomoo ko te yow yaa doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom boo ci jullee nag da nga nu tooñ sëñ tubaab di ko yaama sànni ci géej gi yow mii ma ni boo boo julliwul tooñ sa borom te boo jullee ci gaal gi tooñ yow mii yaama sànni ci géej gi waaye fa man yulxini fil bahri raw man li xurbati faqad jaa ani fi bëri juudul mukarami fa man yulxinil fi lil jahdi fi l bëri zaaqilan faqad jaa ani fi bëri juudul mukarami fa man sadda ani fal mawaahibu aqbarat sëñ Tuubaa lu mu def lemub deram rek sànni ko ci ndox ni yow yàlla su fekkente ni Ibrahima bañ ko sànnee ca sawara wa gëm la ak wéetal laa taxoon sawara wala kuku maa ngi tàbbi ci ndox mi ndax yaa moom fee yaa moom fii su fekkee itam wé benn xeetu sikk wala bokkaale wala ngi sala gi sama xol yàlla ma géej gi lekk daal di sànni der bi Ah, tubaab yi am nañ image boo xam ne bii duñ ko wanee ci adduna xanaa xamoo ne bi sëñ tubaa sànnee der bi ci kaw ndox bi naar bi nee na ci resetu Cheikh al Xadim der bi mi ngi daw allure bi bato biy daw lang ak moom tubaab yi ak passager yi ak ñoon ci bato bépp dañoo di xool sëñ di xool image boobu ñoom dañoo defoon sëñ tubaa dans la mer ngir bëgg a deebeet yoon ngir bëgg a xaru mu taxaw ci kaw der bi sëñ tubaa moo man nga war man ngaa waru fas di ca wane sa mën nga war wala nga yor volant oto di daw ci suuf ci bi waaye war ci géej moo tax waa ji ni ko naar ba di ko xataatu ilayka al bahra wal bahru antahu fa qaatuhu bahran nahwa al bahri min al ajab yow mi yaa man nga nga war yow mi sa foofu der sànni ko cim ndox taxaw ca di rukkoo ak sujjóot der bi ànd ak vague yi ànd ak gannax yi di daw allure bu toll bi géej gi daw bi gat bato bi daw te laboo suuxoo ngay rukkoo ak sujjóot te jàppoo ci dara yow mi yaa man foofee la sëñ Tuubaa yëkkatee loxoom ba mu julee ba noppi dafa tax lool ñaari waxtu yëpp fa la leen julee fa la julee fa julee tisbaar ca mujj muxtaar fa la julee tàkkusaan sëñ Tuubaa xasidaam googu ndax ala inni usni ala xayri munaami wala ashtaki lil xalqi min faqdi anhumi boo ko dégloo tarjumaan rek da nga xam ne sëñ bi mooy góor moo ñeme barke borom Tuubaa dafa wax ne allahumma inna ahdaa i wa adaaka alxaw nii fi lbahri kama alxaw xalilaka fi naar waxaatabtahaa bi yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima fa saarati naaru jannata lahu alayhi wa ala jamil anbiya mursali salatu wasalaam ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayu ya qayum bi xaqi shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaas wa baynaat min alhuda wal furqan wa bi xaqi zalika alkitab saqir li hada albahra hada albahra la wax wa ahlahu wa adaa'i wa adaaka wa bashir almuminina walmuminaati walmuslimina walmuslimaati bi liqaa'i wa ruyati wa sami rujuhi ila daari salaami tuba ajilan bila mashaqatin wala tasabubin ami yarba almi daal di wax suñu borom ni ko waccal haasihi lmimiyata fawqa ma katabtu wa fawqa ma zannantu kama huwa aadatuhu ma hitima kuntu qablaha wajalha zaadan wa jannatan wa junnatan sëriñ tubaa nee na sama guddeeg ndakaar yooye ak sama rakka yooyee ma julli ci kaw géej gi defal naa leen ci yéen ñi ànd ak man góor ak jigéen mag ak ndaw mënuma leen a tey jàq waaye mën naa leen a teerus musal naa leen ci gàcce adduna ak sawaraw alaaxira xanaa loolu jar na ko sëñ Tuubaa nee na musal naa leen ci gàcce adduna ak gàcce alaaxira nee na sama taalibe buy dëgg ci moom gëmmate muy dëgg bu la gàcce jubee lu mu la jige-jige ci jërëjëf sëñ Tuubaa rek ngay mujj kenn ku nekk ci nun ñi ak ñi may dégg mas ngaa ci jant boo xam ne bu doon borom Tuubaa da ngay defeen jooba jant du so dem nga ba gàcce ti dëgmal la dem nga ba naqar dëgmal la dem nga ba tiis wala mbir moo xam ne mii borom tubaa rek la ca génne moom rek a jàpp ci combat yëpp te combat mu kenn jàpp ca barke borom tubaa la in zarra la in garra nii man garrahu zannu xaasidan fa maa xarra nii man jaa adi bi takkarumi moo tax doole dana mën dëgg dëgg dana man doole waaye sëñ tubaa doole ju ànd ak doole la doole ju ànd ak dëgg la ba mu jullee ba noppi image bi nga xam ne wax naa le tubaab yi duñ ko wane na ci àdduna mooy ndekete bi sëñ tubaa sànnee der bi taxaw ci kaw ndox bi di julli mbooleen bindeef mu yàlla sàkk te nga nekk te xam nga lépp lu nekk ci géej lépp lu nekk ci kaw jéeri lu lu ko lu ni mel mi ci biir géej ak lu nekk ci géej te newu ci jéeri géej secret sunu borom la géej maggug yàlla gi lay wane géej ak ni mu mel moo tax ñu naan yàlla géej la sëñ tubaa géej la dangam ndax géej lu sawe bari bari bu ci duggee rek daal di laab géej ci ngay mën a tàng léegi sanguwaay ci falan ko jàpp ci ñu indi ci jën wu tooy nga nga nga jël ko yóbbu sa kër mu dee ci yoon wi nga lekk ko te du medd albahru muqtaribun wal juudu mun sakibun wal jismu mun saksibun bil fardi wa sunan moo tax dënnub sëñ tubaaba la daan misaale géej ci secret ca nekk ak anwaar ya ak tëjëliyaat ya ci nekk sëñ mooy géej bi nga xamee ni dugg na ci sànni ko ci kaw géej gi mboolem mbindeef yi nekk ci géej gi jën yeeg ngaaka yeeg lépp lu yàlla bind tëmb nga ci kaw ndox mi ngir di màggal borom jamono ji nga xam ne mi ngi ci kaw ndox mi. tubaab yi di ko gis. billaahi wallaahi tallaahi lépp lu yàlla bind tam amul ruu rek génn na di màggal bàyyi Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké mi ci kaw ndox mi. bindaa ko yëpp moo tax tubaab yi ñu dóor passager yi pour ñu bañ gis boobu boobu image lépp génn ci biir géej gi tëmb ci kaw di màggal xaadimu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ànd ak bato bi di rukkoo ak a ba julli ba noppi yor da ba noppi taxañaat ab deram nga xam ne na mu dugge woon ci géej gi rek ne la génn ne la ne la dellu ci bato bi tubaab bi ni ko ah lii de xamunu ngor la xamunu wilaaya la xamunu baatin xamunu lu mu doon waaye ngor de yaa ko ëpp ci li yàlla bind xam nga ne lii nga def ci kaw ndox mi julli si gat bato bi daw sader bi daw bu la neexoon boo fi nga tegee te kenn du la rab moo jommal tubaab yi kooku moo jommal tubaab yi hmm. sëñ sama digganteeg ñoom su fekkonte ni luy nuru match de football la score 3-0 laay leen waaw ñetti victoire la sëñ Tuubaa am ci ñoom. dafa wax ni tan fii him fii himu daxra an durri wa tan suru nii bihim alayhim a fawqa su'li tuuti nii ñetti victoire la sëñ Tuubaa am ci kaw tubaab yi. Mhm. victoire bi ci njëkk mooy victoire bu bu ñuul ci kaw der bu weex. Mhm. mës la am. Mhm. nit ku ñuul toppee rek la mas si def. moo tax tubaab yi wax ni Cheikh Ahmad Bamba il a rehaussé la civilisation de l'homme noir borom der bu ñuul ak borom der bu xees topp ko rek lay def moo xamum naar la moo xamum tubaab la buñ masaan a jàngi gànnaar ay puróñ la ñuy doon buñ masaan dem gànnaar euh, tubaab euh, euh, France jàngi ay gourmet la ñuy doon man maa ngi fàttaliku bu yàgg yàggu moodu yu jëkk jàngi jëkk dem France bu njëkkee ay kiloot lañ daan sol yori gën ak a tux ak a yori kaan dootul mën a nekk ak seeni ndey dootul mën a nekk ak seeni baay tey jii bi sëñ Tuubaa bi liggéey sëñ Tuubaa bi nangoo fépp mokk ngay gis koo xam ne kii France la jànge boo demee ci université man mii toog def naa conférence ca Lille fa Faidherbe bi juddoo barke borom Tuubaa waaw caf ca Lille saal bi bari tubaab lool bari sénégalais lool ñu jàng xasaay yi nii gone yi def jàng xasaay ci borom tubaab ci ca Lille ma leen tey ji sëñ Tuubaa xolam sedd na <laughs> ndax ku ne xam na ni Faidherbe ba le gouverneur Ferrer bu ba nekkoon Saint-Louis liil gii ma nekk la dëkk moom de liilam liil gii mu dëkk tey jii sëñ tubaab not na ko ay doomam ngi fi ak i dongom ak i taalibeem di fi jànqasaay ak i turandoom te ndar de gisuma fa kenn kuñ tudde Ferrer benn nit bu tudde Ferrer bu te liil de gis naa fa ñu tudde Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo tax doole dana mën dëgg waaye dëgg dana mën doole waaye doole boo ànd ak dëgg amul morom sëñ bi euh, euh, tubaab yooyu ñetti victoire la am ci ñoom muy ba ci njëkk mooy nit ku ñuul ci kaw nit ku weex not leen mm-hmm. sëñ Tuubaa nee na tubaab bi dañoo mujj mel ne ku ngàbb xalu sawara mm-hmm. mu di la lakk te nga nekk ci biir njëmb mu bari ñax mu bari te lëndëm këris te kenn xamul fu mu yem te boo ko sànnee fi suuf mu taal àll bi nga dee ci biir dafa mujj xamuñu nuñ koy def mënatuñ koo sànni mënatuñ koo yor topp ci moom ñee di jébbulu ñee di xaru mu ànd ak ñoom juróom-ñetti at yu manqué yetti weer daana leen nappaaje sax ndax léeg-léeg ñu dugal ko ci barab boo xam ne bii ci seen biir camp yi ci lay am cellule. di jaamu yàlla ñuy gis muy rukkoo ñuy gis di sujjóot ñuy gis di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñeex bëgg ko am na ci ñoo xam dañ ko daan bañ di ko ko manifester am ñu ko daan bëgg yërëm ko ñeewante ko di sakku mbégam di sakku ngërëmam am na bis boo xam ne bii sëñ Mbàkke Juuf nee na damaa fekk sëñ Tuubaa ci biir kes gi ci njaareem muy reeree yu kawe ma dikk ma jukko dégg muy ree ci kaw ma defee dama koo bett ma bëgg a ku ndànk mu ne ma Mbàkke Juuf ma ra mu ne ma kaay xanaa li may def dalaa jaax sama reejee la jaaxal de man ne ko ah Mbàkke jaaxal na ko man xam nga lu may ree man ne ko ah ko xamoon dinaa reen yow mu ne ko Mbàkke Juuf bi ma nekkee ci géej gi dama fa nekkoon ak tubaab boo xam ne bii damaa bañ lool te di ko war nam ko neexee laa yafalu bil xayra wala yaquluhu wala yuwaafiqu man araadahu lii musa def ci man lu baax musu koo wax musa nangu kenn ku ma defal lu baax te tubaab boobu moo yilifoon tubaab yëpp di na nappaaje nu ko nu mu ko neexe tubaab bu daw bi toppoon ci moom nag muy adjoint bi bëgg ma lool ñeewant ma lool bëgg may defar lu baax te ñimewu ko ndax kilifaam gii nee léeg-léeg mu ne ma lépp lu ma la defal na ko nëbb ndax sama kilifa gii kat bañ na lool te xam nga ko te bu ko xamee rek sama digganteeg yow dana ma yàqal nee ma ne ko muñal yàlla baax na nee na am bis tubaab boobu daw boobu dikk ci ban di reeree ju mel ni sama ree jii ma ne ko lu xew mu ne ko ah kayit ya kat daa jógee tugal ay kayit xam nga ñoom seenu pal ak seenu faleku ci këyit rek lay nekk ay këyit daa jóge tugal bis ni ki tey sama kilifa gii ma yilifoon te daa dox sama digganteeg yow ba tax mënuma laa defal li ma la yéene bis ni ki tey may kilifaam fas naa yéene may itam di ko sant lu baax ci yow te du ko sañ bañ te dana ko def ndax loolu moo ma neex te maa ko yilif sëñ tubaa nee na ma ne ko waaw yàlla baax na waaye diir bu gàtt laa sax ci loxoom ñu yàlla jëlee ma fa yóbbu ma ci loxo beneen bu ma gën a bañ ndax booba yàlla bëggul ma noppalu ndax su ma noppalu woon boobu du ngeen noppalu waaye tubaab bu ndaw boobu nag di ma bind rek di ma fu ma nekk mu di ma bind di ma wax ni ma yokku naa nangam dolliku naa nangam ba bi ma ñibbisee jot naay bataaxalam ba gànnaar jot naay bataaxalam bi ma dikkee njaarim ba tey xamaatuma ci moom dara sëñ tubaab moom am wala de nee na sama xel dem ci moom ba xam fu mu nekk ak lu mu nekk nee na ma dëngal adduna nib këll araani rahmaanu sara dunya sëñ tubaa nee na ku ma soxlaa gis ci adduna dama koy dëngal nib këll moo tax kenn ku nekk xam nga ne yaa ngi ànd ak sëñ tubaa foo mën a nekk lu sori sori bëtam joti na fa loxoom jot ci def nee na ma xool adduna bépp gisuma ko ci ma xam ni dee na ma xool ko ba saxul kéefir yi ne fa xam ni fa la yéefar dee xaarante ba yomal xiyaam ñu àtte leen tàbbal leen sawara ma xool ko fa xóor gisuma ko ma xool ko ba saxul moomi nii ne ca jullit ya ma fekk ko ci njowaana gurus jigeen ur ay ndi ko joow nee na ba ma seen damaa laxasu ma ne ko waaw loo indi fii mu bëgg la rek bëgg la dong ma fi indi te Mbacke Diouf kat li ma reeloo mooy tubaab boobe lu tubaab daan def da koy def ndax jutta wax aslamtu nafsi jutta wax ashhadu an laa ilaaha illallaah waaye bëggoon na ma moo tax sëñ Tuubaa wax ni allamu man asadani laa yéen sëriñ wa bisru man yuhibbu nii laa yéen xarim nee na naqaru bañ man Seex Bamba Seex Mat Bamba du dog ba ba sawara taw naqar su ko sawara dee fangu du fangu waaye mbégum xolum ku ma bëgg du dog ba àjjana te mbégte bu ko àjjana dee fangu du fangu sëñ Tuubaa nee na tawaafu man lam yahwani bayna darri wa bayna zaqu minu kab kabu sari sëñ Tuubaa nee na yan xaaju yu ñu daan man lam nii mu xàlladan fii na zaata lawni nee neena képp ku ma bëggul ku ma bañ bu demee safara moog détenu ya fa nekk ndax safara dafa mel ni ab prison rek nee na détenu bu ne ak ak ak la la yóbbu ak la nga def ba mu tàbbal la fa waaye ña nga xam ni dañoo bañ dañu maa bañ ba tax ñu dem sawara Sëriñ Tuubaa nee na yeneen détenu ya waa sawara dañ leen di yedd dañ leen di wax ni ah man dox dëgg yàlla dama daan rey waaye nag bëggoon naa sëñ Tuubaa man dox dëgg yàlla dama doon def nangam waaye nag yow de wax dëgg yàlla bañ sañ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa moom loo ko bañee nee na ña ña bañ sëñ Tuubaa ñeneen seen bokk yi nekkal sawar sax dañ leen di yedd ndax nag ku ko bañ xaw foo koy teg moo tax réew mii képp ku yor der bu ñuul ak koo mën a doon hmm. war ngaa xam ne am na lu lii lu la lii ak sëñ Tuubaa nañu xam ne stabilité bi Cheikh Abdou Khadir Mbacké nee na yéefar yi dund ci jamonoy sëñ tubaa sax ñu ëpp tawfeex joro dund ci yeneen jamono hmm. Ah, stabilité bi Sénégal am. doo fi dégg lii xew ci yeneen réew yi lu ko waral Serigne Touba rek ko waral. bu njëkkoon migration yi xew déplacement yi xew waaye stabilité bi bërki démb gis naa ci YouTube bi ay catholiques yuy joxe ndogu loolu loolu ci suñu réew mi rek la am. dëgg la barke Serigne Touba ay catholiques. yuy joxe ndogu. ci jamono Serigne Saliou am na forum gerte mu sëñ Saliou santoon sëñ Modou Moussa Dieng. El mm. Hadj Mouhamadou Moussa Mbacké Falilou nga xam ne adduna bépp faq. ndax sëñ Modou ku ne xam na ni moom borom ijaaba la doomi sëñ Fall loolu wax yàlla def ko eh. te daane ko forub doom forub dog eh. loolu la sëñ Modou waxoon gis naa ca ay catholique yoo xam ne yii dañoo dikk ca tool ba ba liggéey ba jeex ñu dikk fa moom di ko sant si di ko wax ni ko nag waaye nun duñu ay jullit ay catholique la eh. mun leen yéen duma leen yew yi dañuy dem ba ca ka ma doon liggéeyloo